asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon nañ koy defee rek à chaque fois tey nag ñu ngi fii ci benn tali ñu seet si nag koo xamante ni duñ ko présenté kenn muy suñu euh, président des jeunes des amateurs mu nekk koo xamante ni nee naa leen chaque jour dañu am contentement pour waxtaan ak moom instant bi nag lamb tëj na mais tijji na. ndax gis nañu instant bi combinaison yi fi am te moom nag wax dëgg yàlla daf cee bokk moo tax yii bu amee rek dañuy fas yéene waxtaan ak moom ñu xool ci làmb ji moom ah, dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi du jànjee ko maa ngi lay nuyoo. maa ngi jotul maa ngi lay nuyu di leen ziar di bi di kontaan aussi si wasaare du jàng ñu gis ni làmb tëj na mais làmb instant bi dafa dafa tijjiwaat ndax gis nañ ni euh, fi mu toll woon gars yi dañ doon dikkee di ñettu làmb dee na deewul ñu ñëwaat gis ni combinaison yi instant bi nan nga gisee ouverture bi ni mu ñëwaatee. waaw xam nga làmb day jindi stress fi mu booy xool bi Gaston commencé euh, waxaale ay làmb ak ñuy wane affiche yeeg Gris Bordeaux Balla Gaye wala Gris wala Balla Gaye booy ñaa waxaale yooyu xam nga ñuy wax tafatin kii xam nga indi indi bombardier ta euh, kii euh, bombardier ak euh, Eumeu Sène donc wax bi bëri na nit ñu ngi commencé sax jindi seen xel ci feebar bi parce que stress baa ngi bëgg muy wàññeeku mooy wane ne làmb rek moo fi nekk Sénégal làmb rek lañ bëgg sport la boo xam ne vraiment dañ ko bëgg sax sénégalais da ko bëgg kon nag il faut ñëpp waroo jàppale promoteurs yi pour làmb sponsor yi gën a ñëw pour làmb gën a réussir parce que population Sénégal moom lañu bëgg mm-hmm. ñu gis ni carte gi dafa xaw a ëlbatiko ndax gisoo ñu ne combat Balla Gaye ak ki nga xamante ne moom mooy booy ñaar combat boobu dañ ci doon wax ñu gis ni combat boobu dafa mel ni léegi beneen plan la demee Balla Gaye Gris Bordeaux dégg nga fi tamit ba euh, ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène ak Bombardier affiche yooyu noonu ko ko gisee. yàgg naa la yow mi wax naa ko sa benn bés ma ne mbër yi nañ xam ne xaalis amatu fi mbër bu fi bëgg a bëree da ngay wàññi sa xaalis da ngay wàññi boo wàññiwul doo kenn du la kenn du la tëgg xaalis amatu fi xaalis moo fi amatul mbër bu bëgg a bëri da ngay wàññi sa loxo. mën a am combat mais boo seeralee sa loxo doo am komba même tey boo demee Europe jour yu bëri wàññi ne seen salaire parce que da koo laaj jamono moo ko laaj jamono moo laaj mbër war a wàññi salaire am sportif yëpp dañuy wàññi seen salaire parce que jamono jee ko ndax jamono lu mu laaj da si siy ànd bu dee nag àndoo si doo mun bëre loolay problème bi. kon ñoom bëri ñoom ñoo war a mën a wàññi seen cachet. mbër bu wàññiwul doo bëri kooku jarul sax wax. mbër bu bëgg a bëri di nga wàññi promoteur bu si fay mbër loo xam ne mënoo ko bu ëllëgee yaay am problème balaa ngay promoteur di la fay loo xam ne da ngay dem police ak tribunal mais laajal loo xam ne ni mën na ko nga bëre suba mu fayaat la leneen yokkal la nga bëre waat mu jeex loolu lay affaire bi loolu ay mbir mi ba ba yow soixante ba yow cent millions boo bëree ñaari yoon soixante cinq millions wala cinquante millions wala léegi cent millions bi ñëw boo daanee prochain combat mun nga amaat 80 euh, millions wala nga amaat leneen. boo gisee ci camp Boy Niang ñu gis ni affaire cachet gis nañ ni moo xaw a posé sax problème ba combat boobu kiiwul te combat Boy Niang Balla ak combat Boy Niang euh, ak combat Gris Bordeaux euh, Balla pour yow ban combat moo ci gënoon jaadu. xam nga tey bu doon tey sago amateur yi ñu ne Boy Niang mooy bëreeg Balla Gaye wala mooy bëreeg Gris Bordeaux parce que combat jànq la mosuñu bëri. mais bu amul xanaa làmb ji duñ toog rek xaar mbër yi wala nga promoteur bi moom teg xaalisam rek di xaar abadan bu munee boole Gris Bordeaux Balla mais làmb ju neex la parce que décision arbitre la ko Balla Gaye daanee woon donc bëgg nañu nag mu leer ki kenn ki tëdd sa morom daan sa morom jël loolu la ñu bëgg. question leer bi euh, gis nañ ni seen premier combat muy Balla ak Gris Bordeaux combat bi ni mu demee woon yow ñoom ñaar instant bi kan moo ci war a jël li nga xam te ni kan moo ci war a jël décision muy ci côté Balla Gaye ak. ñëpp war nañu jël décision waaye première décision Gris Bordeaux moo ko moom. sax Gris Bordeaux. Gris Bordeaux euh, Modou da koo daan Balla machine match nul moom dem daan Modou daan Gris Bordeaux par décision arbitre dem daan Modou war na bëgg dara si làmb ji mooy mu def tout tout pour daan Balla pour mën a bëri euh, Modou pour ëllëg mu mën a ne bokk sax ñu ne mos na jël roi des arènes parce que moom tigre face la sol xaftaanu tigre face la sol. ngir bëroo. kon wane moon ne moom moom tigre la. kon combat bi da nga bëgg wax ne Gris Bordeaux waru mën a perte combat bi. dafa war a bëri ba fas jom lu mu mën def ko pour daan combat bi. fas jom c'est-à-dire. mooy bëri ba xam ne moom day dafa ñëw pour dee wala pour dund pour daan et puis sigil écurie comme sigil ci la nan la mën a sigil écurie Fass. bu bu daanee Balla Gaye sigil na écurie Fass. ok dafa def parce que écurie Fass ñëpp xam nañ ne gëj nañ am ay victoire te moom mooy mbër mu mag bi. kon da ngaa bëgg xam ne combat bi Gris Bordeaux moo war a gën a mën a wone. Gris Bordeaux moom moom combat bi à 100 pour 100. moo war a fexee nu mu def pour daan Balla Gaye bu dee ci côté Balla Gaye côté Balla aussi Balla gay dafa war a def tout pour daan Gris Bordeaux pour moom it dem uti roi bi loolu la ñoom ñaar ñëpp seen bés la mais bës bi ki nga gën a moom mooy Gris Bordeaux moo war a jël daal war a jël décision. jël décision bëri. pour war a sigil face. sigil face sigil boppam jéem uti roi des arènes kee mos na ko jël. mu ñàkk ko moom war na wuti moom mu ko musul jël. mais ñoom ñaar est am na ku cëpp bëre Balla ak Gris. ñoom ñaar ñëpp ay bërikat lañu Gris mën na bëri am na ay faiblesse su bëri Balla Gaye mën na bëri am na ay faiblesse su bëri donc yooyu nag doo ko wax si kii mais ku si nekk am nga foo mëne ku si nekk xam na sa moroom fu mu mëne waaw ah, loolu la loolu bi. Euh, ki beneen bi tamit euh, Bombardier ñu gis ne mm, am na ñu mu yore revanche combat am ak Eumeu Sène ñi ngi ciy wax Bombardier 45 am déwoon nday mat combat mbaam ak euh, Eumeu Sène combat boobu noonu nan la ko war a mën a bëre est-ce que tamit 45 ans yi mu war a bëre euh, yow d'accord nga ci pour déwén làmb ji moom lay arrêté dem continuer. règlement la bu ñu wax am na mbër yu fi jeexal 45 ans. xanaa léegi doo ñëwoon ne léegi Bombardier moom nañ ko defal faveur ana mbër yooyu rek ñoom seen 45 ans bu mu matee ñëpp ñëpp dafa dañoo am na mbër yoo xam ne normalement war nañu mën a bëri ba 50 ans parce que ñu ngi kàttan bi am na mbër yoo xam ne waruñu mbëri sax quarante ans parce que amatuñu kàttan bi loolu si nekk. mais le cas de Bombardier noo ko gisee. mooy na jaar fi mu naan jaar rek. man mënuma ñaan intervention comme ba yeneen mbër yi kenn ñaan si intervention du fi nekk naan damay ñaanal Bombardier intervention. mais combat am ak Eumeu Sène kon nan la ko war a mën a bëree. combat la boo xam ne mun na ko daan Eumeu Sène jénn ak honneur comme ni Balla Gaye Balla Gaye de def dafa daan bàyyi ma ñoon Thiès dafa daan bàyyi ma ñoon mun de bàyyi dernier combat bàyyi ma ñoon la daan bàyyi. moom Balla Gaye. moom Balla kon daal euh, Bombardier combat bi mu gañe ci génn moom mooy. gañe génn wala ñu gañe ko mu génn mais na mais na wane rek jom ak fulla ak fayda bëri ko si yoon. bu daan Eumeu seen mu daan ko bu koy Eumeu Sène daan it mu daan ko ñu xam ne bëri nañu bañ a tricherie parce que parce que xaalis amatul si réew mi xaalis amatul si làmb nañ encouragé sponsor yi. mbër bu ñu si fay nga taxaw bëri si fulla fayda si jom bañ a daw bañ a arrière bañ a indi ay ay jaxasoo di indi ay machines yooyu amatul si lamb da nga war a fas jom bëri dañ la fay ay millions kon bëree si fulla ak fayda jom. noo gisee Tapha Tine Reug Reug. combat la parce que Tapha Tine ñi mu bëgg a bëreel dañ ko mën nañ ne bëriwu ñëw moom xamul dañ ko ragal xamul tax fa dañ ko fi bàyyi moom nag na dem seet si xale yi bëreeg ñoom. combat la. Tapha euh, gis nañ ni bëgguñu combat boobu noonu tey kon ba doon jox adversaire. non Tapha il faut mu am encadrement tuuti yow ñu ngi war a bëreel bañ nañu bëreeg yow mais demal si suuf nga bëri am xaalis tey moom mun na am trois combats si suuf ay xale. comme ñan. mu bëreeg Reug ku dem ba bëreeg euh, kii nu mu tudd. ama ama non kii ama. dem bëre Yékini Junior bëre naa ak Yékini daan ko ñëw ama daan la mais dama jëli rek rek boo ko daanee jël xale yi keneen ku bañ nga jël xale yi mën na bëre Sa Thiès mën na bëre ak ñeneen uti xale ak Tapha Tine boobu kii ngi ci combat la mu bëre ak Malick yooyu yëpp combat la Tapha Tine mais Reug Reug kon kan mooy adversaire am. Reug Reug am nañ ah, ñëpp ko Reug Reug adversaire yu ñëpp la ku bañ a bañ a Reug Reug ko da ragal ku bañ a bëri tafaatin tam da ko koo ragal looloo fi nekk. pour yow problème tafaatin lan la. dara ñàkk encadrement rek parce que xëy na ñi koy ñiy wax xam nga mbër dafa am foo xam bu fa tolloo boo gisee adversaire ak xaalis jëlal bëri parce que làmb dafa metti te làmb rek nga am liggéeyoo leneen lu dul làmb kon bul bàyyi xaay ay millions di dem millions dafa am solo am na fu bari lu mu mën a faj loolu dafa am solo yow fekkee yaay waxaale tafaatin jent ay million doog ko jox te tafaatin bu bu soxlaa deux cent mille ñaari yoon nga ne ko ah man yoratum mais kon bàyyil jëlal xaalis bi nga jox ko mu bari bëri ji yor njabootam loolu tam dafa am solo. kon instant bi ñu doon wax làmb daal. kiiwatul yow gis nga ne léegi làmb ñëwaat na. waaye làmb kay mosut a dem fenn làmb chaque jour combat nga am dañu yor ay VIP yu bëriwuñu VIP mais VIP yu bëriwuñu si ñoom la. parce que tey doo laaj xaalis boo xam ne promoteur yi mën la ko fay bu subaa mu am ay problème mais loolu sottul il faut ñu ànd ak jamono. noo gisee mbëri ñu naan léegi mbëri bëreetuñu mbëri léegi amatuñu ay clé. ay màgg bëre dañ dañuy ñëw rek bokk ci. loolu non am na mbër yoo xam ne ñu bëri seen poids wala seen tour moo leen àggal foofu mais am na mbër yoo xam ne mën nañu bëri macha allah ñu ngi fi. ñi mën a bëre ñu ngi fi de ñi mënul bëre tamit ñu ngi fi ñi am doole kese ñu ngi fi waaw mais doole lu mu bari bari bëri technique loo mën bëre bëre bëre bëre. poids léger mun na la daan jël bu rëy boo ko ëppee doole sax fekk dafa mën bëri. beneen bi mooy dañuy gis léegi écurie yi dañuy bëri ay mbër macha allah da gis mbër yoo xamante ni dañ naan ay mbër la duñu bëre ñi duñu am ay licence nga gis ñoo xamante ni sax dañuy bëre mais pour takk ngemb sax bëre surtout ton un problème xamuñu sax ban pied lañuy to euh, la ñuy teg est-ce que làmb instant bi toll na foofu loolu noonu. maa ngi nuyu président écurie yi. loolu encare encadrement écrit bi la parce que tey nit buy ñëw si yow pour bëri yow yaa am nañu directeur technique am nañu entraîneur mais dañuy seet xale bi ndax mën na bëri te ko bu ñu demee bu wër na écrit bi di mu ngi dem ay xam bu njëkk moo tax tey il faut état ak CNG ñu bàyyi licence mbapat yi ñuy jaay licence parce que tey boo bëggee ne yow da ngay doxal làmb te mbappat mooy école làmb fa la ñuy testé mbër yi kon tey waroo jaay licence mën nga nit mun na bind demande autorisation ne dama war a mbappat CNG may la autorisation xool ndax am nga policier yu doy am nga dara nga indi ko ñu may la nga mbappat mais waratuñu jaay ay licence mbappat parce que doon da ngay doxal làmb ba pare mais làmb day fay tey booy entraîné si écrit yeeg yooyu tey bu ñu doon mbappat si mbappat yi écrit bu ne yóbbu juróomi mbër. yóbbu fukki mbër tey war nañ war ne làmb am na ay mbër mais bu dee ñoom du ñu bëri seen biir duñ ko wane te mbër mi aussi mënoo jël rek yóbbu ko arène des fois nga yóbbu benn boy arène ñu dóor ko dóor yoo xam ne parce que essayé wuñu ko testé wuñu ko bu demoon di wër mbapat yi ñu ngi koy testé xam kii war na mën a dem arène wala mënul dem arène parce que mbapat mooy école làmb mu mel ni nawetaan yi ñuy def nii fa la yi génnee léegi yow léegi boo koy def léegi new ñu ne la kaay fay cent mille francs wala cinquante mille francs foo jëm bëgg a loué seize bëgg a loué kii jël alkaati foo jëm loolu dafa metti loolu làmb day loolu day arrêté làmb. loo gisee léegi mystique bi ndax ñu bari dañ ne mystique bi dafa commencé yàq làmb ndax dafa commencé dominer. non xam nga man mystique bi yeeg yooyu man man yoo xam ne moom mystique bi fii lañ ko fekk fii ngay gis mbër bu taxaw fii télé bi naan la mystique bi dafa ëpp tey moom ba muy bëree moo dàq sotteeku saafara fi buñ sonal nit ñi yow bi ngay bëri buñ la waxee demal bëri ji sans saafara nga ne du ma bëri doo sangu nag si saafara ba bàyyi bëri taxaw fi naan mystique bi dafa ëpp tey nga naan mystique nañ bàyyi yooyu làmb ak mystique moo ànd gis nga Balla Gaye mii ba muy bëri Modou seen premier combat bidon yu bari yi man mii maa toog si télé bi bàll Gaye ngi toog Modou Lo nga toog 2STV man leen seen bidon yi dafa bari bu la ñu fontoo bidon yi dañ si war a teg parce que mënoon di sotteeku bidon 6 heures ba 19 heures wala 20 heures amateur fu sori man ñu njëkk wax bidon yi dafa bari man maa ko wax si làmb ji suñu làmb lañuy ñuy seetaan mystique nag ak làmb ñoo ànd léeg nga ñëw ba si làmb ci sëriñ bi tettal la ne la fii ngay toogee di nga gis lii di nga gis lii nga ñëw gis ko si làmb ci ñu la waa ji daggal gàllaajam yu nekk si loxoom fexeel dagg ko boo ko daggee nga daan nga dem fexe daggal gàllaaj ba daan ko loolu yëpp day am si làmb mystique dafa am noo gisee aada yi ndax gaay yi léegi nee làmb séeréer si dañ daan indi li nga xam te ne mooy seen charme làmb soo say indi mais léegi xamatoo sax loolu mbëru olof yi ñoo koy def boo dee olof da ngay tuus boo dee waalo waalo sax nga indi ay tama ñëw séeréer bi ñoo nga bàyyi aadaam yow nga jël sa aada waaye mbëru olof ñàkk fayda di jël aada beneen mbër wala beneen culture yow yow yaa ñàkk sa bopp fayda nit da ngay gëm sa aada faas pikin tuus lañ leen xame yow nga tuus def li ñu war a def nga def ko waaye nekk fi di jël aada jàmbur moo tax loo si dañ leen di daan aada jàmbur boo ko jëlee dañ lay daan. day gëm sa aada nit day gëm boppam nit da gëm sa juddu gëm sa bopp waaw. instant bi kon làmb nan ko gisee nii tijjiwaat na saison bi nan ko ko gisee ni muy commencé. dañuy ñaan yàlla feebar saison bi amagul dañuy ñaan yàlla feebar bi jóge fi bu fi feebar jógee ah làmb ji ubbi ñëpp dem seetaan làmb xam nañ ne combat yi fii li ñu fiy dégg neex na benn Pape Abdou Fall combat am neex na. waaw yeneen combat neex na ñu bëri ngi taxawal ñuy gërëm ñoom Pape Abdou Fall di gërëm Gaston sëñ Modou Niang ñoom ñëpp di gërëm tous les promoteurs parce que vraiment jàmbaar lañu mënoon nañ jël seen xaalis def ko feneen mais dañ ko jël def ko si làmb kon tey képp kuy sponsor wala nga yor sponsor wala ngay kilifa démb rek am na benn kilifa mu ngi may wax mën ne ko jàppale làmb mu ne ma woy maa ngi réfléchir ma ne ko da ngeen war a jàppale làmb donc tey képp koo xam yor na société war na ñëw dugal loxoom si làmb et puis société étranger yi tamit jël suñu xaalis di ko yóbbu bitim réew di sponsoriser seen gi nañ ko na état bi wax ak ñoom ñu jël seen xaalis sponsoriser lamb société yu mag yi aussi sénégalais yi nañ sponsoriser lamb promoteurs yi casque ne dañoo daggoon daaw licence am na combat yoo xamante ne kii wu pour ren ñi liwal leen yow loolu nan ko ko gisee. promoteurs dañoo war a bind ministre de la culture xamal ko ne ñun ci culture lañ bokk nañu jox comme ni ñuy jox ci nit ñi. ñi ñuy jox musiciens yi jox communicateurs yi tamit dañu jox nañ leen ñoom làmb dañ leen war a jox dañu war a dem ñu jox leen oui promoteur dañu war a bind dem ñu jox leen loolu mooy yoon. pour pour pour bi. mais ne mbas mi état bi dafa génnee alal pour dimbali ñi nga xam ñoo génnee seen perte mais làmb sa la bokk promoteur nañ bind jox leen si xaalis bi mm-hmm. ah. kon xaalis am na fi. ba am. li <laughs> état bi joxe kay am na fi. Uh-huh. ah nañ dem si ministre de la culture mu jox la mm-hmm. léegi looy wax sponsor yi. sponsor li may wax mooy nañ sponsoriser làmb làmb moo ëpp communication si sponsor booy siwal sa njaay boo duggee si làmb léegi lépp siw mm-hmm. waaw boo dugg si làmb nag dangay ngay perte kon nañ ñëw investir si làmb ji moo gën. Mm-hmm. mbër yi aussi respecter sponsor bu la joxee xaalisu sponsor nee trois 3 heures. trois heures ñëwal bu buñ ne la solal blouson bi solal blouson bi buñ ne la defal lii def ko parce que sponsor bi da la fay loolu mu la fay waaye ñu ne la trois heures nga naan dama demoon kër sëriñ ba fële sëriñ bi nee na bu ma sol blouson naa sol xaftaan bu weex ak yooyu day yàq làmb day yàq sport mbër yi ñoom ñoo tax sponsor yi daw parce que mënuñu leen jox seen xaalis ba pare duñu respecté heure bi duñu respecté engagement yi voilà suñu papa Luc Nicolaï ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla mu ñëwaat parce que ñun ñëpp bëgg nañ mu ñëwaat gis nañ tamit Aziz Ndiaye nee na bana Luc Nicolaï caabi féete na ko ginnaaw la lay def ci la. waaw dañuy mu génn ak ñu ngi koy ñaanal guddeeg bëccëg yàlla ñuy ñaan ministre de la justice ñaan président de la république mu dimbali ko mu bàyyi si ay njabootam loolu lañ koy ñaanal xale bu baax la mu ngi ci làmb ji munul bàyyi làmb peut-être mënutul wàcc géew di indi Balla Gaye wala yooyu gis nañ ne produit bi souvent day sponsoriser ay promoteur di lañ jàppale kon kooku bàyyiwul làmb ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal. kontaan nañ ci yow wax dëgg yàlla à chaque fois bu ñu euh, bu ñu gisee dañ lay tàllal suñu micro parce que tamit yow dëgg yàlla yow lépp nga daal te chaque jour dañuy yombalal ñu kontaan ci yow bu baax a baax a baax. di la wax rek sa kàddu gu mujj mooy lan. maa ngi ñaanal réew mi di la gërëm di la sant yaak sa caméraman di leen ñaanal di ñaanal Sénégal gépp yàlla defal ñu jàmm mosul ñu si làmmiñ ak cat ak feebaru mbas mu bon bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi jóge si barke yonent bi di jaale Serigne Babacar Sy rakkam bi nga xam ne moo génn àdduna muy Pape Malick ñu ngi ko koy jaale ak képp ku bokk Tiwaawan di di jaale it sëriñ Cheikh si euh, Cheikh Diagne Seck bu bu Canaba di ko jaale waa Canaba gépp di ko jaale it euh, Daouda Seck ak Fat Seck nga am ne ñoom dama bokk ak ñoom ñoom dëkk si bokk si kër ga euh, donc Tafsir Sakho it ñu ngi koy jaale sëñ Habib Sakho ak Pape Sakho di ko jaale njaboot képp njabootu euh, képp koo xam ne nii yaa ngi bokk si maam Ibou Sakho di ñaanal ñoom ñëpp yàlla xare leen àjjana ak képp koo xam ne nii jën na àdduna yàlla na yàlla yërëm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi ñaanal réew mi yàlla defal ñu jàmm musañu si feebar bu bon bi jàppale promoteurs yi ñu mën a am xaalis di tëgg làmb ñun amateurs yi ñu ñuy bégal parce aussi promoteurs yi u dëgg yàlla dañ leen war a jàppale ñu am lu ñuy tëggee làmb parce que ñun ñoo ñuy bëggal ñun amateurs yi mais ñaanal amateur làmb yëpp tamit yàlla ubbil leen xéwal may leen xaalis ak wér ku si feebar ñu ngi lay ñaanal yàlla wéral la ku si génn àdduna tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla xaaral àjjana waaw di ko bëggewaat nag bu baax a baax mooy Doudou Diagne Diécko président des amateurs tey nag ñu doxantu woon ñëw seetsi ko waxtaan ak moom ci li nga xam te ne moom mooy combinaison yi am comme que moom mooy actualité ndax nee naa leen suñu papa Gaston dafa bàyyi woon ñëwaat wàcc sur le terrain mu nekk loo xam ni nag instant bi lamb ji tëj na mais instant bi lamb ji tijji na ndax gis ngeen ñi am combat yi taxaw macha allah di ñaanal promoteur yëpp di wax nag wax dëgg yàlla lamb namoon na lii di ñaan yàlla rek yàlla sotti lépp ci barke Seydina Mohamed nuyuwaat bu baax a baax l'infatigable Basirou Diouf maa ngi lay bégee bu baax a baax di la wax yàlla na sa jàmm yàgg di bégee nag képp koo xamante ni yaa ngi suivre wasaare làmb wasaare TV di bégewaat nag ah ñoom ñoo ñuy suivre sama gars yi bégee naa leen bu wér a wér <laughs> sama gars yi bégee naa leen bàyyi leen tooñi ah di leen nag ndax gis nañ ni wax dëgg yàlla ni ngeen ñuy jàppale gis nañ ni ni ngeen di encouragé ni ngeen ñuy encouragé yàlla seen jàmm yàgg ni ñuy wax rek seen sœur lañ seen rakk lañ seen i lépp lañ wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen bu baax baax a baax euh, Basirou di ko bégewaat nag euh, bu baax a baax ndax dafa ñëw yokk cere dolli ñeex muy ki nga xam te ne moom mooy Kara Fashion nekk sama góor nekk suma xarit di ko ñaanala moom moo génn fii di ko wax euh, yàlla na jàmmam yàgg numéro Kara nag ñëpp xam nañ ko 77 07 59 77 618 07 59 moom mooy numéro Kara sama góor di ko ñaanal yàlla na jàmmam yàgg daal kontaan naa ci bu baax a baax bas ñu doxantuwaat rek dem seeti benn amateur wala benn mbër wala tamit ñu xool benn promoteur Wassare Lamb dañuy doxantu rek comme que nag combinaison yi ngeen soxla noonu rek dañuy def jaajëf Basirou Kese Fatima Kese.